nga boo xam ne bari ay bagages. nekk doon mel ni comme ne ngay taxaw comme nit maa dugg na dugg nga fee ci xale. ça dépend mu nekk fële mu ëpp ambiance quoi. waaw dégg nga macha allah ba ñu tudd rek day jaay wane rek ñaan ñaan leen Sëriñ Babacar kii moom doomu mbir la loolu la xool ay Ama Balde Balla Gaye. ñun noonu lañ soxla. ay booy ndaw yi def seen ñooy yëngal. loolu loolu par force la. ci kanam tuuti ci kanam tuuti nga gis lu tëwaar. respect yaayam baax papam baax juddoo fii ci biir Médina bi defuñu fi lu ñaaw waxuñu fi lu ñaaw donc ñun xamoon nañ ne Diène day jël ndam li waaw macha allah. waaw xanaa di wax leen ni ñëpp wax rek Diène xale bu baax la xale bu yaru la xamoon na dina am ndam te ndamam li yàlla na doon jiglaayam yaayam ku baax la Diène bu lay nuyu sax du la xool ndax yaroom ak bëri kersam yàlla na ko yàlla defal jàmm ndam li yàlla na doon lu sedd guy ci moom. Marie laa tudd may maamu jéen kay re ah, waaw waaw gannaaw bañ sant gannaaw bañ sante yàlla na julli ci yonante bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam borom barrière or bi ñu ngi sant yàlla bu baax ci julli ci yonante bi di sant suñu ñaari waajur nag ba ñu yàlla mayee fekke ak tal ndax ñu nag baayam la woon ba tey jéen ñëw tey xëy na sant nañu yàlla bu baax ba ñu yàlla mayee ndam ndax jéen xale bu yaru xale bu respecté ay ndeyam respecté ay maamam respecté ay rakkam respecté ñëpp jéen moom zéro faute moo tax ñun tey lu waay mën tey ci saar tey def nga ko lii rek lañ doon ñaan te xam ne tey mbooloo mi jéen kay la yóbbu tey jii foofu yàlla may ñu ndam ndax dina am baat bu ñaan gu ci yàlla nangu. asalaamaaleykum waa Leewtoo TV ñoo ngi leen di nuyu di leen sant ci turu famille Dioufène ak famille Ndiawène yëpp Medina. di nuyu ñëpp dëkkandoo yi di nuyu waa quartier Médina Asakna Derklé Kër Ndiaye Lo Gueule Tapée amuñu seen fay ci li ngeen taxawoo suñu sët bi suñu doom bi waaw man nag nijaay laa ci baayam doon toog si cumbukaayam waaw nijaayam laa doon toog si cumbukaayam mais léegi man maa de des si kër gi léegi maa des si kër gi mais vraiment taxawaay bi rafet na trop waa Médina di nuyu suñu maire Bamba Fall di nuyu sunu lider Euh, Cheikh Ahmed Tidiane ba waa CATB ñëpp vraiment taxaw nañ si ñoom tonton Abou Diop ñëpp Gallo Alsane Touré Fawad Likandaw ñëpp taxaw nañ taxaw nañu xale bi taxawaay bu rafet rafet rafet rafet di gërëm ñoom maxu grand père gërëm nañ ñëpp daal vraiment ku lim juum si turu famille yi vraiment ñun amuñu seen fay amuñu seen fay xale bi xale bu neex defal ñaan la parce que Ousmane xale bu am yar la xale bu am yàlla xale bu xam mag la waaw te yaayam tamit vraiment jàmbaar la jàmbaar di ñaan yàlla yal na ko yàlla may wér sànq ba léegi ci moom laa nekkoon di di ko defal di ko defal wallaay mais combat bi tolloon nañu foo xamante ne ndam rek moo ñu te ñu ñu koy gërëmee suñu borom li nga xam ne ne vraiment moo ñu may ndam lii di ko gërëm te yàlla na ci ay ndam yi ba di topp incha allah vraiment kontaan nañ si ñëpp kontaan nañ si ñëpp macha allah vraiment jërëjëf. man la Moustapha Diouf ah man la Moustapha Diouf di di nijaay ci Boy Kairé waaw maak yaayam ñoo bokk benn baay ma ma ma laa man maa doon toog si maaroon toog si cumbukaayu papam waaw maa doon toog si cumbukaayu papam amul fu fu ñu demul nag wallaay wallaay wallaay wallaay wallaay sama confrère Leewtoo TV. Mhm. ñun nga mhm. mhm. def nañ ko suñu wàll. salaamaaleykum. maaleykum salaam. leen di fay. waaw xanaa di sant yàlla rek di sant tamit dëkkandoo yi mbokk yi xarit yi àndandoo yi waaw di sant nag sama benn doom bu ñuy wax baaba Diaw spécialement baaba Diaw ndax Baba Diaw vraiment bëgg na Diène taxawu na ko jàppale na ko ba mu amee combat la ko jëlee sama kër wutal ko néeg fi këram Medina ni ko foog nga ñëw communier ak say say supporters ndax li ñu toxu njaayloo supporters yi buñ la gisalee duñ la kii foog nga ñibbisi fii wax dëgg yàlla maa ngi koy gërëm di ko sant. waaw dëgg la moom mbégte mi moom macha allah kontaan waaye di delluwaat rek di sant yàlla te xam na sama ñaari doom nag ñoo doon bëre ndax Modou Anta ñu mu fi rue bii la dëkk dëkkandoo la daanaka mën naa wax ni sama yaay tamit seen seen tante la ndax sama yaay jigéenu nijaayam la woon laay mbubb xam naa loolu moom Modou Anta xamu ko mais yaayam xam na ko sama yaay xam na loolu wax dëgg yàlla jàmm rek moo fi moo fi war a xew fii Medina la te koñ yi benn koñ rek moo moo ci kii waaw sport la woon kontaan di félicité waat Diène di encouragé Modou Anta di ko wax ni démérité wul li ci li ñëw daal moo dàq macha allah waaw. di ko ñaanal gudd fan ak wér rek ndax doomu ñooy kenn du ko jàng kenn du ko ñaanal rëy. danga koy ñaan gudd fan te comme doomu mbër la lu mu daf ko doon ba pare nag bëgg ko ma koy ñaanal mu dem ba jël roi des arènes bi waaw moog rakkam Mbagnick waaye ndax jéen mën na am lu nekk ndax yaru na bëgg na ay waajuram respecté na ay waajuram dégg na ay waajuram waaw lu ñu bëgg la bëgg lu ñu bañ la bëgg di gërëm nag waa écurie Soumbédioune yëpp di gërëm dirigeant yi waaw Euh, di gërëm nag benn maamam Ibou Combaan maamam la si dirigeant yi la bokk mais maamam la di sonn ci lool sonn ci lool di gërëm ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm xaritam yi waaw dëgg moom it waajur bu kii la bu sonn ci doomam bëgg doomam tiitalu leen ay doomam ragaluñ ko Kairé dafa ubbeeku ci ay doomam vraiment moom tamit di ko ñaanal daal mu fekkee lépp di ko ñaanal lépp lu mu amul woon ci làmb doomam yiw jox ko ko loolu rek laa koy ñaanal mu fekkee lépp